waaw ñu ngi ziar ñëpp nag waaw leen wax mm, ñu ngi ci marché bi gis nga yaa ma gën a xam waaw ñu ngi nii nag waaw client yi moom ñu ngi nii rek yaa ma gën a xam xam nga ren moom xaalis moo amul mais bëgg nañ quoi mais daa am yoo xamante ni moo gën a été bu la big bi yaa ma gën a xam ak rouge bi mooy loolu mais nag sant yàlla daal ñu ngi ñëw ndànk-ndànk waaw. xaj na jours yi bu desee ay kii moom dinañ jënd ñu ngi ñëw ndànk-ndànk nag. waa si client yi moom vraiment wax dëgg yàlla ñu ngi ñëw bu baax ñu ngi ñëw bu baax ñu ngi si bu baax. waaw non xam nga dëkk bi amul xaalis moom dëgg la vraiment amul xaalis moom mais nag euh, comme nit moom comme da ngay liggéey nekk ci marché bi soo saa soo yoree client yi soo saa yoree bagage yu baax rek moom client yi incha allah bu ñëwee dañuy jënd moom vraiment dëgg yàlla. non bien sûr euh, wax dëgg waaye ñun commerçant yi wax moom sant ndax wax dëgg yàlla client yi ñëw nañ jaay na leen vraiment wax dëgg yàlla Euh, day fekk na saa soo yore bagage bu baax rek moom boo ñëwee moom da jaay incha allah. marché bi daal moom mi ngi nii fi mu ñoo ngi ñëw di jënd li am du doy sax suñu njaboot ndax lépp suñu boroom Macky Sall da cee teg loxo seeral lépp dudd bi seer na marchandise bi seer na xar maa ngi nii amagu ma am xar maa ngi nii ci dara laa jëm te leen bu ma demee xaru 150 000 lañ may wax ak ay 200 000 waaw te man xarum 100 000 daw ko paase. waaw ñu daal ñoo ngi jooytu fu ñu toll waaw bëgg nañ nag bu gestu marché Touba bi marché jàppale doomu aadama yi te dimbale leen te fu ñu toll courant yóbbu marché 5000 yaa ngi yóbbu marché 10 000 mënatoo too dundal sa njaboot waaw ñoo koy jooytu fu ñu nag waaw ñoo koy jooytu man marché Touba bi laa dëkk fi laa juddoo fi laa màgge ba toll ni ma toll. bu ma bu ma masaan indi fukki junni dama ciy dugg ba duggaaleel ay jàmbur te ji nag mënatumaa indi fukki junni yu mat marché xam nga loolu metti na waaw loolu metti na leen nag ñu ngi koy jooytu bëgg Macky Sall teggi loxoom te wàññi dund bi wàññi euh, dund xotti xale yi te yéer yi boo yóbboo sa ñëw di ñawlu boo daa ñawloo 5000 yaa ngi ñawloo 10 000 te loolu yëpp sart yi leen teg moo metti waaw ndax ñi leen fayeeti fayeeku weer ñu daan fay weer ay 15000 ñu ngi fay weer ay weer 5000 ak ay ak ay ak ak ak ak ñaar xam nga loolu metti na te loolu yëpp gouvernement bee ko waral waaw moom daal bu waree faloon or loxoom danañ sant yàlla bu baax waaw bu waree faloon loxoom ku koy watee laal lay doon waaw kon day toogaat troisième mandat. xanaa ñëw fi jënd si ay bagages ay sakos ak yooyu noonu daal ak ay daal ak yooyu moom fi indi woon tey wante bagages daal cher la xaalis amul. yaakaar bi mooy loolu daal. tabaski daaw moom moo tane moo tane ren ren moom xaalis amul te bagage yi na lépp a cher yëpp a mhm. waaw marché bi instant bii nii clients yi ñu ngi dugg ko génn mais daaw moo dàq ren quoi année bee jàll la clients yi ëppoon ko ren quoi mais instant bi ñu ngi sant yàlla nag parce que ñu ngi dugg ko génn quoi ñu ngi jaay ndànk-ndànk. ñu ngi ñëw dañuy ñëw nii nii rek dañuy ñëw ko dem rek dañuy ñëw ko dem rek waaw. waa dëkk bi ñu ngi de. ñu ngi sant bu baax instant bii nii waaw. waaw waaw waaw instant yi tabaski moom macha allah waaw.